allo waaw maa ngi nii di dem supermarché nag waaye dafa am lu ma bëgg wax bala maa dem waaw ndax yéen ñi moom jaaree ma wax yéen moo tax saa maa ngi ci Facebook bi comme naka di nga wuti bridge waaw waaw lu ma bëgg mooy yéen yéen Africa yéen lu leen may da got ngeen gis nit lijjanti struggle lijjanti struggle ba xegg bitim réew gam xegg ah? ngeen mel ni yéen yéen a yëkkati boroom sëpp ko bitim réew mel ni yéen yéen a moom boroom di mere boromam ne lu tax defalut leen li ngeen bugg mu defal leen ak yéen ku leen mën a defal lu ngeen bugg yéen Afrique yéen kan leen mën a defal li ngeen bugg yéen Afrique yéen yéen lu ne bugg ngeen ko yéen Afrique yéen bugge ngeen ba jaaxal ma yéen Afrique yen fu ngeen toll yéen ak seen lay yi du jeex pour nit ñi jox leen xaalis yéen Afrique yéen ah yéen ku leen topp war ki salaatu fatiha ñun suñ culture ko topp da nga wax ba dee fàtte ñu suul la waaw bitim réew gi ni ñi ne noonu ni ñi dañ ko xaree lijjanti ko waaw bitim réew gaa ngi nii fi ma ne nii sax rafetul xam lu ma leen di woon nii ne ma si any amazing place ma ne si John Power bi sama boori kër. ngeen am saas néew ma si place yu rafet yi Edinburgh taxaw leen ba ma dem town sax vlogal leen next time may dem town vlogal leen ba ngeen gis bitim réew rafetaayam bi yëpp waaw ñu jaale leen yéen ku leen mës a gis yéen nit ñi su ñëwee bitim réew lijjanti ñiy sëy ak màggati tubaab ñii lijjanti lañ mën a lijjanti ba ñëw bitim réew kenn ku nekk la nga lijjanti ba ñëw bitim réew ngeen rakkati ko di mere nit ñi di sëriñtu nit ñi di def nit ñi ennemi ne tax nit ñi defaluñ leen kët indiluñ leen bitim réew wala sampaluñ leen kët wala hibbiluñ leen business ah wala jëndaluñ leen oto yéen ñu ne jox nit ñi xaalis boobu est-ce que am ngeen bitim réew nu naqadee xaalis est-ce que yéen bu nit ñi di ñëw bitim réew yéen yéen yéen a dimbale nit ñi <coughs> yéen ñaata yéen a dimbale nit ñi pour ñu ñëw bitim réew yéen ñaata yéen a génnee seen peni seen benn dalasi dugal ko si nit ñi seen diggal seen seen lijjanti bu ñuy def pour ñëw bitim réew yéen koo xam ne sax dugaloon nga bu tur si ki ñëwam bitim réew wóor na ma nit fay na la ba fay la lu ko dabal bu yàgg wóor na la ki yónnee na la xaalis bopp nga dugaloon si moom bu yàgg nit ñi ngeen di lebal teranga di dugal xaalis si ñoom ñu ñëw bitim réew te fayuñ leen bëri wut sakkan ak sama maas yi nga xam ne ñoo lijjanti seen bopp ba ne cëpp bitim réew dugalante seen bopp ba sëy màggati tubaab yi ne cëpp bitim réew te nit ñi bu ñuy sëy ak màggati tubaab yi ngeen di ree nit ñi maa ngi nii ci digg bitim réew gi laay wax ak yéen seen ngeen ko tubaab yi seen ngeen tubaab woog doo am ciy dox si digg bitim réew gi laa ne de comme naqadi nga wuti birij yéen kan moo leen moom kenn moomut leen moomu leen nit ñi ñëw leen bitim réew a ngi nii ne de xàll xàll xàll baa ngi ni dikk leen tubaab yaa ngi nii seen réew maa ngi ni kenn nga bu ko ñëw leen sëyi leen ak màggati tubaab yi wala ngeen xuus géej gi ñu jaale leen wala ngeen rëcc ñëw yéen lii lum do Afrique yéen kenn moo leen teree ñëw bitim réew kenn yéen ñu ci bëree ngi foofu lamsingu Afrique di réeku di naan ataaya di lekk benn cin di kool nit ñi xuti sëriñ di réeku ni xuples buñ jaale hmm? te du ngeen lijjanti nu ngeen di ñëwee bitim réew wala bu ngeen lijjantee du ngeen xam ne gën a soxla gi ngeen oto yi yëpp moom ma ci benn nag waaye oto yi bitim réew yaa ngi nii ak biti ji ca biti boole laa jëm moom ma ci oto yi lenn nag ngeen a xam saa xaw ma oto fi mu ne yéen a taxaw ma oto de yéen Afrique rek yéen seen natt yi ngeen di teg nii yéen Afrique yéen parce que salaatu fàtte Afrique yéen ngeen dee yéen bu ngeen oytuwul bu ngeen dee fi mu ne yéen su su nit ñi lijjantee ba ñëw bitim réew ah ngeen dëree ko di di mere nit ñi di tongoo nit ñi di sëriñtu nit ñi di di jafang-jafang ne tax nit ñi indiwuñ leen bitim réew waaw daal di dëree ko ni yéen yéen a moom nit ñi moom bitim réew gi daal di ñëw indi fi nit ñi sëpp leen te fekk ni ñi ba ñuy seeg màggati tubaab yéen leen doon ree ba nit ñi seeg màggati tubaab pour ñëw bitim réew yéen leen doon ree ku ci seeg màggati tubaab tey ah wala wala màggati nit ku ñuul wala anything ah, yaa ngi koy ree ah ku si dem baag wee tey bu la koolee ne la càng naa xaalis yéen ñaataa si yónnee seen mbokk yi xaalis bu ñu leen koolee ne la càng man sama benn cause ñu foog nañ ne dafa dee léegi baag wee la dem càng kool mbokkam mi ne leen dañ may dañu may dóor ñu ne naa fay nangam bala ma dee mbokkam mi ne xamuñ ba pare beneen mbokkam jabari nijaayam génnee xaalis ba jox ko yaayam ah ne pour mu fayal ko mu lànk ne du ko fayal mu ne tax gune góor ga muy dem tàggoo wut xaayee nañ ko ne bu mu dem baag wee mu ta dem fu mu léegi nag na dee moo ko yëg lànk ne du ca dugal xaalis ba 15000 la woon xaw ma xayam gune góor ga ay xat ba tey koolu rey nañ ko xam naa rey nañ ko ca naar ya booba yéen Afrique yéen ni ngeen mel est-ce que xam ngeen ko yéen Afrique est-ce que xam ngeen ni ngeen mel ah xam ngeen ni ngeen mel su nit ñi lijjantee ba ñëw bitim réew lijjanti ba ñëw bitim réew ñi seeg màggat tubaab ñi xuus géej gi bëri ci ngeen toog di naan ataaya lekk seeni i ceeb dëree ko ci sëriñ yi nag sëriñ bu ne ngeen dëree ko ah ni këf na nu xam na leen ko jox di boole seen bopp ak nit ñi maa ngi yuuxu ci sax seen bi de tubaab yaa ngi wër xaaral wàndaang sëriñ bu ne ngeen dem ne ngeen di boole seen bopp ak nit ñi yéen kan ngeen mën a boole seen bopp ak nit ñi yéen ku xañaan ta soxot manga ngaa boole sa bopp ak nit ñi yéen nit ñi ngeen di sëriñtu pour luñ xam jox leen yéen est-ce que wég ngeen ah di sëriñtu nit ñi di sëriñtu nit ñi seen doom yi di sëriñtu nit ñi seen jëkkër yi lu ne ngeen di def yéen Afrique yéen bëgg ngeen te xees te ñeme xàq te te xàllaaxira safara di leen xaar wala yéen jaanama ja gën a xonqaleen di xaar est-ce xam ngeen ko. yéen wét ngeen kenn moomut bitim réew gi bitim réew gaa ngi ni ñëw leen ñëw leen wuti leen visa ñëw ku ci xamul visa ñu jaale la nga toog toog lekk mbaxal ñu suuli la su ma yoon néew si waaye nit ñi buñ lijjantee nag ndig ni ñi fa am xol bu set te yàlla wërsëgale ne danay ñëw bitim réew nit ñi lijjanti ba ñëw ñii sëy ak meeri tubaab wala ñii dugg si géej gi wala ñii ñëw normal wee waso eba ngeen ràng dëree ku di sëriñti nit ñi ka def yi yal na leen seen xol yu xiis yëpp dëpp leen yéen nit ñi ngeen di xañaane bitim réew gi lu ngeen leen xéene yàlla këpp leen ko ci darajaay alxames yàlla jële tey ci digg bitim réew gi may waxee nii yéen ku leen mos a gis maa ngi nii dugg si shopping center fi may wax ndànk may wax ndànk wala ma ba suma vidéo bi sax ndax ku leen topp tubaab bi dinañ ko seetaan waaw xañaan ngeen tab bon ba jaaxal ma leen Afrique ku leen mos a gis yéen bu ñu di seen màggat tubaab bi yéenay toog di reen gis ngeen di tubaabam bi kek kek kek tubaab bu bu bon bakkan comme ça paa ne sama kanam nii façon paa yooyu su ko sama maas gisee yéen dañoo bitim réew mais naan hee di sàngam boo gisee tubaabam ak tubaab bu màggat man sama tubaab ba nga xam ne màggatul rek xëy na fa wéda di boole si fa màggat ba pare wéda di di lekk jimbo yi ñorul yeeg lekk ba tey supame yi ñorul yi ba ma doon takk te temps bu man xamoo ne supame bu ñorul fañ koy lekk ah du yéen ñëpp ko doon ree man sax ma ko doon ree ci su pomme ji ñorul jamuy lekk taay mboobu lu ma si xam ah bu xees de ma koo soxla waaye jaru ko taluma bodaay ci ci yéen laay ne di defante yéen tey yéen Afrique ku leen mos a gis ah? man di fa lu ma jëndoon war ko delloo moo tax may wut lu ma ko wecceel fii waaye ximanteer lañ may suuli seen bagage ñi seen bagage bu bon yi la ah su ñu sëyee màggati tubaab ak a def yëpp ba ñëw bitim réew ngeen di reeku man maa ngi nii may wax ak yéen man la ci digg bitim réew gi yére yaa ngi nii wër ma supermarket baa ngi nii tubaab baa ngi noonu fii lay liggéey gis ngeen ko bu leen naqadee ñu jaale leen yéen yéenay kan yéen bu nañu lijjanti di seeg màggati tubaab yi bay ñëw bitim réew yéen est ce que yéen seen seen nexoon na ci est ce que yéen toogu leen woon di ree nit ñi toog di gaaruxale nit ñi di jëw nit ñi ba pare yéen ci seen bopp sax li ma gën a naqadi ngeen di toog foofu selenglu yéen ñu ndaw ñi si bëri naan man de du ma sëy ak màggati tubaab pour mu bitim réew jaralut ma ko lay lay la laa non man kay su may dem bitim réew te su ma doon am jëkkër ku ma loof lay wut loof lay wut loof nit ba pare mu indi la bitim réew aka loolu moo naqadee xam aka loolu moo naqadee xam ah ñun ñu sacrifice loof ba yëpp sànni loof ba sëy ak ku ñun kuñ loofut ngir yàkkamtee ñoo bitim réew ne fa ñuy ñëw wut si xadu naan ndooy boo xam ne yéen du ngeen may nit ñi jàmm ba nit ñi xam ko bañ suuli ni ñi nit ñi seeg magasins tubaab yi ñu nëbut seeg ko nëbut nu moos nem dee mu war laa nangam tànta nëboo ko moos see dindey goog ak gàlli goog ak toskari goog xaddina jar na ko ñun xaddina di ñu ko jaral ñii xaddina di leen jaral ñu dugg ci géej gi dee yëpp xaddina di ñu ko jaral te buñ ñëwee ngeen di direeku direeku nag meen ni yéen yéen a def sacrifice yooyu yëpp nag mais ni yéen ñi nga xam ne fi ne yéen yéen yéen a defoon sacrifice yooyu yëpp ñun ñu def direeku ñu sëriñ tooka direeku direeku rek ne ñun ne ñun bu tuut bu ñu xam fi mu ne nañ leen ko yónnee ah te ñun ba ñuy sacrifice suñ bopp di seeg màggat ñeeka def yow dugg ci géej gi dee yéen a nga toog selenglu di lekk ceeb di waaw maa ngi dem nag fi ne waaw ndax ku leen topp ñu jaale ko waaye danañ leen suuli de yéen ñun la man de xamu ko ci des waaye man génn naa ci waaw génn naa ci man du ngeen ma ti des Afrique yéen lii lum la yéen Afrique xiis ngeen te ñeme xàq barke salaatu faatiha yéen te suñ waxee na ngeen di law law julli naga ka defi yëf yéen lu ngeen di julli la ti fi mu ne bu fi ne lu ngeen di jullil Afrique wax naa leen ko ba sonn na leen lu ngeen di jullil yéen kenn mësul leen a gis Afrique noppaliku leen julli mi ta dallu doo sum li tubaab yi de xamuñ fi sax man lu may weccee suma lifin bi moo jëndoo ñëwee ci bitim réew ngeen xañaane nit ñi bitim réew yi sëriñ bu ne ngeen ne fa cap ne nit ñi luñ liggéey tañ leen ko war a jox lu leen nit jox ngeen xeeb di réeku nangam rek la ma yónnee de julli gi rek la ma jox moom de ne lam daan yëpp fa ko ba wala julli gi de yónneehu dara nangam diw ba xamee doom yónneehu dara ba diw nangamee diw yaa yónneehu dara ba diw nii naa diw yónneehu dara ba nangam ki nangam xewee diw yónneehu dara nangam rek la yónnee de ma yow lum la yónnee man de yónneehu ma dara dalu leen yéen lu ngeen yónnee nit ñi lan ngeen yónnee nit ñi ak bu nit ñi ñëwee Afrique di leen seet si sax lan ngeen dee jox nit ñi lan ngeen dee jox nit ñi yéen ñu si bëri bu nit ñi ñëwee Afrique seet si leen togg gu baax sax bu ko toggee nit ñi nit ñee génnee ba jox leen ko yéen kan ngeen yéen a dee toggal nit ñi bu nit ñi ñëwee seet si leen lan ngeen dee toggal nit ñi lu jógee seen xaalis lu jógee seen seen poos hmm? lu dul nit ñaay génnee xaalis ba ah man de tey xam ma jëm du ma xam lu ma weccee li ma jëndoon nii te bëgguma ko. fi mu ne nit ñi bu ñëwee sees si leen nit ñaa génne xaali pour ngeen toggal leen su ni ñi buggee suppu kànja wala nangam nit ñi génnee njëgg a jox leen ko du ngeen ruus du ngeen tiit nit ñi di leen yónnee xat yi yëpp ba nit ñi ñëw buñ ñëwee buñ waree a fa ñuy génnee la ñuy lekk génnee la ñuy toggee jox leen ko mais nit nit ñaa ngi bitim réew ñu di leen jaale yéen ñuy toggal seen bopp fii soo léegi wati si yéen lu ngeen defal nit ñi yéen ngeen fa ne àddina isa ba defal defal te yow doo defal boroom dara ku wax ngeen ne fa yabaateeg fay gaaru xaaleeg fandaane jooy man de li ma koo bëgg a jël sax instead of lifin bële waaye tubaab yi dafay xamul li ma li ma bëgg a wecc nii mooy problème bi te man yi nag ma merloo fi ne ba xamatuma li may def yu yu ne waree miin ah Afrique jéggal leen nit ñi xam naa ne xàq dafa am waaye gëmu leen ko ngeen a foog ne xàq xamut xam naa ko. moo tax ngeen di def li ngeen di def foog ne ndax yéen li ngeen di def nit ñi da ngeen si mucc te du si mucc danañ leen suuli digg bëccëg xam naa ko waaye fim ne balañ leen a suuli nit ñi fañ leen di suuli su nit ñi defu seen bopp nit nit ñi fa ñi dee yéen balaa ngeen a dee li a tax may wax waaw mu lii ban size la ah doo sum rëy a bon lii day duma xaj size ten bu jaale bile man xaw ma size yu sew yu suuli yi la lu tax tubaab yi la di ko def file te génne ñu rëy ñu mel ni man dos sum tubaab yi la xañaan teñ jaale leen walla lii lum la oh loolu fa rëy boobu 22 soo fi mu ne jaale nañ leen jéggal leen nit ñi maa ngi dem képp ku ci ne di liggéey nit ñi walla ngay xañaane nit ñi ne nit ñi lu ñu xam lu tax joxuñ la ko ngay liggéey nit ñi ka mere nit ñi ka jëf-jëfi yal na la yàlla dëpp sa xol bu soxot ba ouh soot xaw ma lii ban size la de képp ku ci di liggéey nit ñi kat def yëpp ak xañaane nit ñi seen bitim réew mi kat jëf-jëf yal na ko yàlla dëpp musiba lii de foog naa fa muy yëpp lii fa ma yëpp xaw ma ban size la wax naa leen ko nag ndax nit ñi fañ sonn balaa ñi ñëw bitim réew ñii di sëy ak màggati tubaab ñi di sëy ak gune ñii di ñii di ñii di dugg géej gi dee wa ku dee dee ku rëcc rëcc lu ne ñi di ko def ba ñëw bitim réew gi li te yéen a ko gën a xam bu ñëwee ngeen di ñu ko xañaane nag ndeysaan mais ni yen yéen a moom bitim réew bi mais ni yéen yéen a ñu fa indi ah, ñaata la konoon ma jël ni yéen yéen moom bitim réew bi you di ñu ko xañaane ñu di leen suule xaaral ma jël bi topp ñu faam ñu ma jëndoon fii ñaar ñaari bagage laa jëndoon fii keroog waaye bagage yi ma koo delloosi moo tax ba daayis bi dafa mel ni dana ma xaj xaaral ma dem sax wut ci Facebook live bi yéen ku leen topp ñu suuli ko 36 ji ah loolu de suma saay la waaye xaw ma ñaata la half price xam naa 6 pound lay war a do xaaral ma ko rek may na gis ngeen ko yéen a tax ba kenn du mën a jënd dara lii yëpp yéen a koy def nit ñi itam de bu tuut bu nit ñi xam war a jënd dara ngeen lam sa ngi nit ñi xaaral ma seen a tubéy uniforme yi aadi yi xam na fii bu rëy moo ko jëndaloon last time daf ko daan ah nit bu tul buñ war a jëndee dara duñ ko mën a jënd ngir yéen gis ngeen man saa bu may jënd ca wanteer wa lay dem ca wanteer wa duma mën a jënd yu xees de ca wanteer wuñ jaale ba nga xam ne kenn solatu ko loolu rek laa fi sol xat yi ma fi neexee yëpp nag wanteer wu lamb wu jaale rek lay sol waaw ndax bagage yu génn xees yi duma mën a xam njëgam ndig yéen ndig Afrique yónnee xaalis biñ leen di def waaw yónnee xaalis ba bagage yu lamb yi rek la ñuy mën a sol lu ñuy fay xamul uniforme baam waaw suñ doomi suñ leen waree a jëndal sax gis nga ko fay seer uniforme yi gune yi gis nga ko thirteen pound lay jar ñaari tubé yi ne xamuñ sax saay si aadi beneen palace baa ko am Emanes ñoo ko am xaaral ma ñëw dem Emanes te ñoo nga xam ne nag ñoo nga xam ne kuy dee ñoo la gën a pare kañ ñoo seer Emanes ah nit ñi fañ na bitim réew gi mu seer ba bugg a dee te nit ñi te nit ñi di manage ah, ku xañ reer sax doo ko xam di seen maalo bi nga ngay xañee yéen ngeen di xañ reer ndékki Afrique di réeku mais bu ne di ngaf ngaf yi lekk di togg mbanay na yi lekk yéen ngeen a rep te njaale leen acca leen rek fi mu ne fi ne su ngeen wécceeku léegi tey ngeen dee ngeen ko leen mos sa gis ah ñu ne ne maa ne si ay commune ngeen ko leen mos sa gis ah taxaw leen ma ma dem sax taxaw leen ma dem balaa suma internet bay jeex néew ma sa néeg danaa ñëwaat ci yéen.